maa ngi fas yéene gaaral kàddu sànni kàddu ak gaaral kàddu du benn gaaral kàddu mooy wax joo xam ne xel mu sell daf koy nangu waaye téere daf koy dëggal sànni kàddu mooy wax lu la neex kum neex gëm kum naxari bàyyi euh, ma yëkkati benn kàddu goo xam ne bi ma koy yëkkati màndiwuma jinne jàppuma maa ngi woon ak suma sago li tax ñu yëkkati ko mooy bëgg gi ñu bëgg sunnatu rasulillahi te bokk ci jullit mi mu leer ma ne diina lislaam du lu ñuy donn ci gaño dina lislaam du société bii lii leen gëm ak lële dina lislaam du lii moom a neex wala kii am a saf waaye dafay tegu ci kitaab wa sunnat buñ demee nag ba gisuñ ci loolu mën nañoo nangu jamo euh, lislaam boobule képp koo xam ne danga ci nekk di def lu baax am na lu la yàlla dikk ku ci nekk di def safaan ak mbaax am na lu la yàlla tëkku ak lum la xub képp ku ci wax mbir am na nu ñu yàlla jàngale nuñ koy defee ma dégg Sénégal yépp ne man ma wax ne nen njaalo ji ma wax ne na njaalo bi yokk may leeral ne ki am xel waxu ko ci xolam bi benn iñaan nekkul màndute rek nekk ci waxu ko li ma waxoon loolu lay dëggal duma ci wàññi benn virgule duma ci jéggalu yàlla duma ko tuub duma ci jéggalu benn doomi aadama man dama am pédagogie ak suma façon de faire mooy choquer pour éduquer loolu mooy suma yoon dafa am benn saxaabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam su nit ñi toogaan moom yëfi laalante rek lay laaj yonent bi ak question yu vulgaire comme ni ñu ko mën a waxee saxaaba yi den ko daan mere saxaaba boobu tey moo dimbale julliti lépp loo xam ne rusoon nañ koo laaj moom moo ko laaj bañ mañ koo xam ndax diine amul kersa te diine lépp lañ war a waxtaane léegi dama war a ñëw ci leeral ana lan mooy kàppoot ana lan mooy waxtaane ci juma lan mooy juma ak lan mooy waxtaanu sëy bi ci njëkk mooy protek lu ñu defar la ngir mu musal jaam bi muccal ko mu ngi mel ni ni ñu defaree dàll mu musal la si naaj bu tàng ak gaañu noonu la ñu defaree masque mu mun laa musal waaye capote noonu leen ko war a noonu leen ko defaree pour ngir mu war a laa musal te matière capote xaraamut plastique la mun nga dugal capote sa poche di julli te julli ba yàqu fi ngay sujjóot capote mën na dendoog moom te julli gi du yàqu loolu moom ahlu fiq nangul neen ma ne matière capote xaraamut daf mel ni rajo kii da ci riita mbale ki di ci wax allahu akbar du rajo baa xaram waaye la nga cay wax léegi lan mooy juma jumaa néeg la boo xam ne tey fu ñu doon def mbalit suñ fay tuur mbalit tuurukaayu mbalit la tudd mais même bu buñ dagaasee mbalit ma tabax fa tuddee ko jumaa rek den naan wa annal masajida lillahi fala tadoo kon démb tuurukaayu mbalit la woon tey jumaa la nangu neen ko jumaa nag bari na tur tudd na jumaa mooy mbooloo tudd na masjid tudd na baytullahi néegu yàlla léegi eh, balaa lislaam di ñëw daaru nadwa la xéeféer yi daan dajee di fa waxtaanee seen yu positif ak seen yu négatif di fa def mbooloo bi lislaam ñëwee am jàkka yonentu sallallahu alayhi wa sallam jumaa ji moo doon tribunal fa leen daan àttee jumaa ji fa la daan recevoir ay ganam fa la doxandee mi daan dëkk ci biir jumaa ji fa leen daan éduquer jullit ñi moo tax lu ci bëri jumaa yi day am dara ci biir jumaa ji leen daan joxee information nécessaire léegi kon wax leen ne jumaa pour éduquer ak information léegi euh, semaine bi yàlla wàññi ñaari ràkk remplacé ko wax te communication dafa am solo ndax yonentu yàlla Haaruna yàlla yónn Moussa moo wax yàlla neen ko yoon ngir éloquence am ak bon orateur bi mu doonoon wax bu neex ak wax bu jaar yoon moo tax ñu yónni yonentu yàlla Haaruna parce que Moussa dafa dëtoon dafa dotom mu ne ko yónnil suma mbokk moom neex na làmmiñ mën na wax kon communication ñàkkul solo ci lislaam mbooleem ponki lislaam yi juróom bi ci njëkk ta nga mën ci dugg mooy communication da wax sa gémmiñ ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah julli foor ñu wàññi ñaari ràkka communication remplacé ko fan leen ko defee ci juma ku koy def imaam donc ci biir loolu laa waxee ne war nañoo mën a xamal nit ñi jàngal leen waxtaanu sëy entre góor ak jigéen bi su juma waxtaanu sëy ci diine lislaam daf ko nangu yonent yàlla muhammad daf ko daan def jàngal na aysa muy jàngal jigéen ñi yonentu jàngal na ko góor ñi daf ko daan waxtaanee ci jumaa ji kon li ma wax génnul sunna léegi nag lan mooy sexe bokk na ci teraanga yi yàlla teralee doomaadama mooy sexe tey njaalo dafa xaram Cheikh Ahmed bu ko jéemee daganal xéeféer la ak ku dul Cheikh Ahmed Cissé loolu kenn ñemewu ko léegi yàlla wax na bu leen njaalo ci suñ société ñun ñu am ay jigéeni jigéen ñu am ay jigéen yoo xam ne ñun ñoo nangu li ñuy àttewoo muy constitution may leen seen droit jox leen carte ñuy cagatu ci biir askan wi ñu di leen xam xam seeni place xam seeni barab te jigéen buy cagatu client mooy góor te jigéen jooju ëllëg mooy muuru julli client boobu demoon fay caga ji tëddanteek moom ëllëg mooy dugg ci jumaa ji léegi lislaam musta bàyyi doomu adama te wér-gu-yarami doomu adama daf ko ñor ba booy lekk daf la naan raxasul njaalo li bonee mu ne la bàyyil léegi nag comme looloo ngi njaaloo te aljuma den ko war a utiliser ngir sensibiliser jullit ñi léegi aljuma amatul njëriñ ci ñun parce que da ngay dem ñu foog ne ajjuma xutba bi pour waa waaru la ak yuuxoog jooy déedéet du loolu ajjuma dañu war a waxtaan comme tey Sacré kër gi ñu nekk imaam bi dafa war a wax ne yéen waa seen Senbuzz seen bunt kër gi yéen a ngi fa jàll suuf mu ngi tere oto yi di dem óorut ndax xale bi mën na génn du ko gis ñu fàdd ko nga sensibiliser nit ñi ñu xam ne suuf du pour yoon ndox du pour yoon benn tuyoo toj nga ne kër sàngam neen mooy tale ko ndàngam suñ ko sensibiliser dañuy am société bu moderne société bu baax société bu am yoon imaginel tey jumaa yëpp doon xutba ci wolof di wax ak nit ñi actualité koñ ba kon nit ñi dañuy changé doo gis kuy julleeg nit di ko jëw waaye da ngay dem ci jumaa xulli sa bët ñuy làkk arab ba jeex nga ñëw lu demee nii laa doon wax pour que soo toogee tey ci jumaa imaam na la yàlla moo ñu wërsëgal sëy bi ci gën mooy takk jabar su fekkee ne yéen li leen ko yàlla ah yëpp ragalu leen yàlla waaye waaye na ngeen jël seen kaaraange xam nga tey mbaam xuux dafa xaram ak ak ak ak sàngara waaye lislaam daganal na la ko boo demee ba ñàkk pexe ki nga xam ne waar nga ko waaroo te mu ngi dem di laalante di julli ci jumaa ji lan mooy solution benn ñaareel ba da ngay gis jigéen ju nangoo sëy toog ci këram di sëy jëkkëram mel ni Cheikh Ahmed Cissé topp xale yi di nàmp rek ba jël feebar war a ñëwaat ci moom tëdd ak moom islaam daf naan taxaw leen yow wàll am nga feebar ngir kaaraange jigéen bi ak musal ko léegi solal kàppoon nga xam ne sëy bi du tas ndax ab xadul xalaali ila allahi talaaq li daggante yàlla bañ ko mooy fase waaye kàppoon mën na tax sëy du tas mën naa dem du watu ji su ma yaram bi dagg fekk fañ ma watee am naa sida islam daf naan taxaw leen ma régler situation bi fa leen soxlaa kàppoon mais bi ma ne kàppoon rek njaalookat yëpp seen xel ci njaaloo la dem waaye ñu ragal yàlla seen xel mënu fa dem ndax kàppoon ak mbuusa donc wax ji Sénégal miinu ko waaye lislaam nangu na ko ndax lislaam dafa préparé tout donc tey imam bi war na wan am na benn feebar bu bon hépatitis la tudd en anglais feebar bi dafa am A ak B boo amee boo ko amee léegi dem Amérique dañ lay rey parce que dañ ñu nang ragal nga wàlle ko daanaka ñun ñëpp a ko am fii moo gën a bon sida ta xamuñ ko A ak B laalante boo ko bokk na ci lu koy joxe ñu ngi ko bari la ci dëkk bi léegi lan mooy rôle imam ci société bi bu fekkee ne dañ ko wàññil ñaari rakk ngir mu waxtaan ak jullit ñi foofu war na waxtaanee sexe ndax ay góor a fay teew wax leen li yàlla xaraamal ba pare indil leen solution bu fekkee ne bu fekkee ne nangu koo bàyyi ñu indi leen protect léegi nag soldats yi dañ leen di sédd protect dañ koy joxe ci yeneen mais sa ne pas dire demal nga njaalo ji waaye doomu aadama dafa mëtadi soo demee ba mbir war la dal nga def ko am na koo xam ne ñàkk dab na ko waragut a am doom te dafa war a tëdd ak jabaram mën na utiliser kàppoot am na koo xam ne tey dafa nekk ci couple dafa feebar warut a tas bëggante nañu protège mën na leen a lii laa bëgg imaam yi di si sensibiliser nit ñi ginnaaw bu ñu waxee laa taqar boo sida ba bëgga a nit ñaa ngi gën a njaalo mais ñu indi solution kon xam nga lii leer na waaye nag bu fekkoon ne dama wax Sénégal ne li mu wax fan la ko teg ñu dajee waxtaan waaye ñii dañuy xas personnage su nit ki ñii réyal wax ji ñi naan Sénégal amuñ nanga man lislaam laa waxuma nationalité loolu laa doon bëgg a leeral ci wax ji di wane ne na ma ko waxee woon démb noonu laa ko waxee tey noonu laa ko waxee suba te na ma boroom xam-xam yi dimbale ndax am naa xam-xam lool waaye mataluma téere yi bu fekkee ne yii ma wax nag dafa dàquwanteeg sartay jowaak lu ñu war a wax kon neen ma ne aaya bi ko xaraamal ak lii ak lii ma tuub ko jéggalu ko waaye jusqu'à preuve du contraire man lii laa jàng ci sunnatu rasulillahi te lii laa gëm